maa ngi leen di gërëm leen sant. aussi waxtaan bi alors man li may njëkk wax mooy le régime actuel te loolu leer na ñëpp pour nu réprimer il est très fort mais pour nu protéger il est faible te loolu dugg na si bopp ñëpp ndax duñ fi ñëwaat si ay scénario yoo xam ne am na fi ñu gis ni liñ ci waroon taxawee taxawee wuñ ko. muy benn ñaareelu mbir mi feuilleton judiciaire bii ñu génn le premier juin ba le passé gis nañ ni instrumentaliser nañ fi assemblée muy deuxième institution de l'État yëkkati fi ay malaanu kiirlaay député muy Ousmane Sonko far yàlla fa mu mujjee mooy lañ koy toppee ne mbirum viol ak mbirum siif wala menace de mort dara amu si tey preuve lañ am ne sofental nañ deuxième institution de la république waa capitaine Touré mi ngi ci daaxoon tey ban conséquence la nar a am gis nga nit mën nga jël sa décret radier nit dàq ko wante mu noo radier nit si xolu nit yi te loolu dafa leer fu mu toll nii sunu ay priorité xam nga si lan la waroon nekk suñu rakk yi ñi war a defi ji bac ñi war a dem def seeni composition suñu rakk yi jàngatuñu suñu prof yi enseigné tey université temple du savoir tëj na loolu yëpp mu nekk ay problématique hivernage baa ngi ñëw gis nañ ay bulletin ANACIM wax ne dinañ am ay taw kenn toppatoo tabaski baa ngi ñëw tey la 5 boo rombee ci banque yi yi ci bëri dañ tëj gab yi nit ñi dañ fa ranga ranga ranga ranga rang ñu bëri fii xëy na fayekuñu seen salaire loolu kan moo ñu ko teg benn régime boo xam ne dafa bëgg a maintenir fii nii taxaw nag défier ñu nee ñu pour ma dem dangeen may ñaan njekk waaw pour mu dem nee na ñu ñaan ko njekk waaye ñun liñ koy tontu mooy ñun dañ la joxoon màndaa si njekk delloo ñu ko si njekk bugguñu réew mu tàkk bëgguñu justice bu ñu manipuler bëgguñu suñu ay force de défense et de sécurité yi nga xam ne dañ leen fonk wekk leen ñu jàpp ñu di ñu dóor jël ay xale yu ndaw di leen ériger en bouclier te démb ba ñuy def déclaration à la presse reveniruñ ci waroon nañ ñu wax lan moo tax suñu rakk yu ndaw jooju suñu suñu doom jooju ñu jël ko def ko en bouclier donc fu mu toll nii wax ji gudd gudd ni ko waxee mooy yaay yi sëngeem nañ rakk yi ñi ngi jooy xanaa nag du ñu xaar ba ñuy jéggat di jéggat di jéggat ay moor pour que suñu njiitu réew génn wax te santuñu ko lenn négocier wuñu lenn maanaam constitution bi dana la nul nëpp exerce plus de deux mandats consécutifs yem ca delloo ñu caq bi ñu la delloo woon ñu dénk keneen parce que le peuple est souverain ñaareel bi li ci war ci manifestation bële ñu jëm muy le 8 ak le 9 le 9 et le 10 plutôt dinañu fexe ba suñu mbokk jigéen yi ñëw en dina ñu fexe ba suñu rakk yi wala suñu mag yi nekk ay ndaw ñëw en masse te maa ngi invité la presse ñu invité ndaw ñi wax ak ñoom parce que lu si gi bëri lu ñuy gis mooy dañuy nekk si télé yi si rajo yi di juger ndaw ñi pour pourtant pendant ce temps depuis dimanche nit samedi plutôt nit ñi ñi ngi mobiliser wu centre national de transfusion sangine di joxe ay téeméeri téeméeri deret pour ñi nga xamante ne dañu feebar tey li doon priorité gouvernement bi mooy fexe ba am une politique nationale de la jeunesse li doon priorité gouvernement bi mooy fexe ba mutualiser les agences yi nga xam ne dafay lekk suñu alal li doon priorité gouvernement bi mooy fexe ba suñuy milliards du rees lii priorité gouvernement bi mooy fexe ba ndaw ñi mën a am jàng bu ñoom 15 jours bi fi romb nii organiser nañ fi lu tollook ñetti salon wala forum organiser nañ fi forum de l'économie sociale solidaire organiser nañ fi salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi organiser nañ fi salon du numérique waaye fan lañ mujjee ndaw yi ñoo génn di xeex te Sénégal am nañ organisation ba nga xamante ne képp ku ñu gis ngay bandi képp ku ñëw gane suñu suñu chef de quartier yi dañuy dénoncer suñu chef de village dañuy dénoncer kon nag buñ ñu ne ay force occulte ñoo fi ne gis nga taxaw di bàkkoo force occulte fexe ba sa ndaw dàq say force occulte moo ko gën te ñun ñii taxaw nañ pour sauvegarder suñu démocratie Sénégal amatul pour def démocratie fu ñu toll nii mooy consolider suñu démocratie fu ñu toll nii mooy fexe ba ni Nigéria di bàkkoo man sama président ñëw na def na troisième mandat dajale na acteur yëpp def peace accord maanaam accord de paix boo xam ne acteur politique yëpp dañ siy tënku ñun foofu noonu la ñu bëgg suñu réew jëm incha allahu rabbi pétition bi nga xam ne lancé nañ ko ñi ngi wax bépp ndaw ñi ngi wax bépp góor mi ngi wax bépp jigéen nañ ko signé en masse te yéen presse bi autocensure bi ñu leen def ñu bëri tey fii amuñu connexion mënuñu liggéey jug leen ngeen xeex ko buñ ko bàyyee rek acteur politiques yi buñ ko bàyyee vingt 24 ñun ñëpp nañ nekk benn say taxaw ne non à un troisième mandat le peuple est souverain et le peuple restera souverain je vous remercie de votre